digeureum nak wacce ci yep parce que sur xalé nan eh, so joté ci ndaw da nga wara geureum d'abord ay wajuram parce que seni waju xeyna ñoo leen xirtal ci man donc may geureum wacce ci yep ñi nga xamné bayi nañ seni dom ñu bari lol tay dajelo ci salle bi tuddu ko salle Nelson Mandela ñu ñew fekk ci ma ndax ñu xool ensemble ndax dañu mën a defaree loo xam dina mën a defar dëkk bu mel ni Thiès ah loolu nag ma ci félicité seen président bi nga xam ne mooy Bara Diop bi ñu élire tey moom ak comité bi nga xam ni

des femmes mouvement des femmes tay bi nga xam présidente mooy de Mbacké Diop ñep xam ko man plus de 100 groupements de femmes yo xamné par nos moyens propres nous les avons soutenus nous les avons formés aujourd'hui ces femmes travaillent bien une jeunesse nous ñoo décidé nous ñew légui dimbale ma ci liggéey bi nga xam ne damaa jóg rek te dara taxul ndax lu dul dimbale Thiès dimbale ndax waa Thiès dañoo sonn ci politiciens yi dañoo sonn ci ñi nga xam ni jóguñu pour liggéey dëkk bi mais dañoo jóg rek pour jaxase carte yi pour ñoom gën a mën a tirer profit ci liggéey bi loolu daal moo tax li nga xam ne ma jóg tey ànd ak ndaw yi nag ñu ne la nekk lee ndaw yi nga xam ni ay sentinelle lañu ay ça veut dire ñooñu dañoo nar a taxaw taxaw tem pour xool lépp loo xam dafay yàq Thiès ñu taxaw ci pour baare ko loolu nag dañ cee décidé ñoom librement ànd ànd ànd ceeg man du jeunesse yoo xam ne jox naa leen dara tey ñi fi ñëw ñëpp ñoo paasal seen bopp ñëw àndandoo te pour salle bi sax dañoo mujj tànn juróom fukki eh, téeméer ñaari téeméer ak juróom fukki xale kese mais matoon ay junni junni junni yo xam dañu bëggoon na ñëw lool nak fi ci kanam ay fan ci seen plan d'action dinañ def benen activité bo xam nag su boba bureau bi dina inviter jeunes yépp ñu ñu dajale stade par exemple wan leen ne ndawu Thiès yëpp ànd nañoo mouvement bi ñu tuddee alliance pour le Sénégal prospère ndax té dañu bëgg inshallah doomu Thiès yu mel ni ñun ndok ndaw wa Thiès ñu def Thiès bi nga xamné moy nek ray di nek garu émergence bi nga xamné mom mo jëm ci prospérité bi nga xamné ñun mom la woté prospérité boobu moy tax jigéen ñi mën a am lu ñu dundee góor ñi mun a am lu ñu duggee xale yi mun a am jàng mën a am liggéey loolu ñun moo ñu tax a jóg du liggéeyuñu pour dugal suñu bopp dañoo liggéey pour boole waa Thiès ñëpp ñu àndandoo pour defar Thiès. un Sénégal prospère am ñu yaakaar ne danger la ñu am cohabitation assemblée nationale bi di ñëw lan moo si seen gis-gis yéen. waaw man jàpp naa ni Sénégal liggéey na démocratie boo xam ni suñuy suñuy maam Léopold Sédar Senghor. jaar ci Abdou Diouf jaar ki fi joge Abdoulaye Wade ba tey ci Macky Sall liggéey nañ démocratie bo xamné ñi ngi ci yoon démocratie bi nag tay amna 50 et quelques années dëgg le gars mais egg nañ eggaguñu foo xam ne ci sama xalaat man war nañu promouvoir cohabitation moy bolo opposition ak euh, président ñu bokk réew mi né lañ koy ké parce que tay suñu homme politique yi fi leen réew mi rek taxoon a kon mun naa ni cohabitation mun na am mais suñ ko defee dinañ yàq liggéey bi ñu liggéey yépp parce que au lieu ñu avancer dañuy taxaw foofu rek nag di xuloo ko xeex kon man may woo ñun ñi nga xam ne ay mouvement lañ di woo waa population bi ñu àndandoo mayaat président Macky Sall ñu mayaat ko pouvoir bu mu mun a jëlee assemblée bi ndax lan ndax liggéey bi mu commencé mu mun ko eggale eggale ko ba mandaam jeex ñu xoot ñu toog ñun politiciens xoolaat naka nañu continuer liggéey bi nga xam moom la fi bàyyi woon mais comme mi ngi nekk à mi parcours jàpp ma ni euh, wàññi doole moom mooy suñu doole ñun soo jiitalee nit da koy may doole pour mu avancer mais doo jiital nit jox ko bopp di di di doo ci làmminam làmminam nag loolu wolof Njaay moo ko lépp comme dañ ko jiital jox ko bopp bi yëpp ñeen jël bopp beeg nopp yeeg làmmin yëpp jox ko ba mu liggéey su liggéey bi baaxee.

mooy Thiès li ñu ñor mooy ni ñuy boolee xale yi boolee mag ñi kon ne nag suñu liggéey jëm ci élection yi nga xam ne ñun moom moo ñu gën a ñoral ci kanama ak kanam teewaayu Lamine Aissa di ci APR fii tey euh, ci station bureau des jeunes dama koy euh, rafetlu ndax bi ci njëkk lamin Lamine Aissa sama xarit la sama doomu ndey la parce que Lamine doomu cheminot la man ku ma xam-xam ne sama papa cheminot la. ba ñuy xamante boobu xalaatuma woon ni dinaa dugg ci politique loolu mooy benn bi donc dafa ñëw fekk si frère am beneen bi ay Aïcha nit la koo xam ne gën naa ne am na conviction yu bari yoo xam ne dañ ko bokk kenn mësu ko dégg ci ay xuloo fi ci Thiès donc gëm naa ni moom ànd ak moom la mu ñëw teewee sama kii lu lu mun a nekk la beneen bi nga xam ne moom moo ci topp mooy man sama mouvement du mouvement boo xam ne dafa jóg bokk ci benn parti politique wala bokk ci beneen. dafa nek mouvement bo xamni dafa neutre lepp luy deug jël na ci pouvoir public am ci ak ci opposition bi may wax tay woo naa képp ku nek ties ko xam nga ni gem nga ni li may def ñor na la gëm nga sama intégrité gëm nga ni war nañoo ñi ma andal doy na pour ñu mëna a liggéey Thiès woo ci ñepp ñu nekk ci opposition ak ñu nekk ci pouvoir ndax li ñu ñor moy liggéey Thiès kon ñun on est au-dessus des querelles politiques on est au-dessus des ñun ñi ngi ci kaw ci querelle politique yi ak ci querelle partisane yi nga xam mom moy mooy diviser Thiès kon dal euh, teewaayu Lamine Aïcha ak ñeneen ñi fi nekk ñoo xam ne xëy na leen dama koy rafetlu di leen ci sant di leen wax tamit loolu lu nekk la. maay euh, président bi nga xam samay euh, samay camarades euh, fal nañ ko mu nekk loo xam ne dama leen ci sant leen gërëm ci confiance boobu ñu nga ñu ñi nga xam ne def nañ ko loolu nag li ko waral mooy euh, monsieur Mamadou Ngingue mën naa ne jeunesse bi dafa nekk jeunesse boo xam dafa taxaw pour jaar ci tànk yi nga xam ne seen leader muy monsieur Mamadou Gningue jaar na fa ci ñun loolu lañ bëgg wane nit ñi nekkat am na beneen jeunesse politique boo xam ne existé na boo xam ne ni dina wane ci nan la ñu si yan anam la ñu mën a defaatee beneen politique bu dul politique boo xam ne dañuy xasante di saaga di saaga nit wala di sànnante xeer fii ñu fi nekk jeunesse bi fi nekk c'est des jeunes yoo xam ne ils sont ñoo xam ne nii am nañ si le plan professionnel lépp dañoo taxaw dooleel président Mamadou Niang te ñun xam nañ ni kii Thiès dañ kaa yéex a am ak monsieur Mamadou Gningue lu bari mën nañ kaa defaraat Thiès tey tool nañ foo xam ne politique à Thiès kenn bëggatu def politique tey jii ñooñu tey ñoo fi ñëw jeunesse boobu moo fi ñëw jeunesse bi nga xam mos a def politique ak ñi nga xam ne dañoo doyloon ci politique tey ñoom ñoo ñëw teew ne ñun kat kenn lañu gis ni war nañ ñoo mooy espoiru Thiès muy monsieur Mamadou Gningue ñun nag à travers ma modeste personne loolu dina ko nekk loo xam dinañ ko illustrer ci dans les jours à venir wane ni fii Thiès kenn fi nekk muy monsieur Mamadou Gningue te loolu tamit dañuy wax président la république tey ji bëri na ñoo xam ne nii ñu ngi koy ñu ngi nekk ci wetam nekk ci entourage am ñoo xam ne nii Thiès moo leen pourtant Thiès la ñu dëkk wala jugee feneen ñu tey jii li leen war ci jeunesse bi defuñu ko des na mais kii nga xam ne lépp lu mu am jeunesse la ko partagé te xaaru dërëmu président xaaru keneen te bu koy def sax xamoo ne sax na def genre yooyu la war a promouvoir ñu jàppale leen bu ko defee ñu mën a défendre intérêt Thiès waay ñun à notre niveau ci mën dinañ ko def wan fii benn homme politique ñun la ñu reconnaître muy monsieur Mamadou Ngingue te lu lu mu laaj ci temps ci ay moyens dinañ ko ci def ba ñun ñëpp xam ni l'homme fort sport à Thiès si kenn la muy monsieur Mamadou ku la jàppale sa njaboot jàppale na la sama ñu jàppale si cours de renforcement yi di jàppale élèves yi am bac bachelier yi pour ñu poursuivre seen études te loolu ko gis ku ne xam ni lu rafet la lu neex a def la jëlale naa loolu social bi muy def xëy na Baara dafa dafa maa jël au dépourvu mais quand même Baara wax moom kenn ma la fi cee teg dara xanaa di leen ñaaxaat yéen yi. xamal leen ni élection yi ñu dëngal si carte électeur yi jël leen ko te jéem a parce que cohabitation bi ñuy wax bés yàlla ku ko yàlla def mais su ko yàlla defoon mooy Sénégal émergence bi ngeen tuddoo mbubboo ko ba fas yéene ànd ak fàmmu di ñun Sénégal émergence boobu dootul émerger parce que dinañu bloqué yi fii parce que danoo nekk en face d'une opposition boo xam ne amul xamul fu mu jëm amul programme li ñu xam mooy xaste ak ŋàññante li ñu xam mooy lépp lu Macky def actuellement war nañ cee mën a xëpp suuf mais suñ ko defee dañ ko regretté kon yéen jàpp naa ne kenn ku si war naa mën a am sa xarit war naa am sa mbokk war naa am sa famille kenn ku si soo delloo ci kër ya nga waxtaan ak sa famille pour cohabitation boobu bañ a am loolu daal laa leen di ñaan di ko ñaan jeunesse bu jigéen ñi di ko ñaan jeunesse bu góor ñi ndaxte cohabitation moom su amee mooy dëkk bi wu na lépp bloqué wu na sa yéen li olof di wax rek su lëg dee ma mbabal doom jaa tax ñun suñu toogee fii ba instant yi di wax ak yéen ak topp ci Pape Modou dafa am lu ñu gis parce que xale dina jóg sax du gis mag toog fa mu gis lu bari kon yéen dama leen di ñaax ngeen gën a jàpp ngeen delluwaat ci base bi gën a liggéey kenn ku si nekk fii dans un mois war ngaa mën a taxawal sax comité kenn ku ne si yéen war naa mën a taxawal comité ndax ku ne am na famille ku ne am na xarit ku ne am na am di jàmm ñu waxante paasante sa ngeen leeralal cohabitation leeral leen leen cohabitation assemblée li mu signifié leeral leen ko nit ñi parce que loolu moom su amee blocage am na dëkk bi dara dootul dox sa Macky dafa taxawatul doxal dëkk bi parce que bu gis Pape Modou xam ne du ànd ak kuy caaxaan du ànd ak kuy tricher du ànd ak koo xam ne amul benn ambition si dëkk bi parce que lépp lu ko ñor moom jëmm lu ko ñor mooy defar Thiès parce que dem na ba tax ni moom nekk ministre sax baa mu nekk leneen parce que même ministre man ñu ko fay lu raw li muy am kon nekk ko moom mu ne nekk maire nekk au service de sa population moo ko gën a kon loolu si boppam war na leen a yee ni moom lii muy def depuis 2014 c'est bien deux avant 2014 bay boo ma ne cinq ou 6 ans avant daan na fay ay cours de rattrapage daan na dimbali élèves si éducation bi kon loola ba mu koy def politikul man je suis parmi ñoo xam ne maa daan dem ànd ak délé forte délégation di dem di ko imposer que naan ko politique parce que yow soo soo politique dinañ ci gis njariñ parce que nit koo xam ne day dimbali ku mu xam dimbali ku mu xamul li ko ñor mooy njàngale parce que jàpp na ni ci éducation bi ci nga mën a amee lu ne kon yéen itam góorgóorlu leen jàpp seen i étude te jàppale ko ngeen ànd yàlla dimbali leen ay ndax ay cadre rek laa gis fii ak ay élèves ay espoir de demain parce que ay ingénieurs a ngi fi ay directeurs a ngi fi ay professeurs a ngi fi ay enseignants a ngi partout kon yéen jàpp naa ne su ngeen jàppee mu dëgër ngeen fexe ba seen entourage jàpp rek dinañu mom kees parce que mom wax deug yalla élection locale yuy dëgg dama ñaan yalla mu doon meeru Thiès. élection yi jëm te su boobaa Thiès moom dina changer bu baax a quand il a décidé de s'engager en politique. on en a beaucoup discuté il m'a dit il faut que tu puisses comprendre que nous avons un destin à assumer surtout dans cette ville de Thiès. Moi, j'ai pratiquement fait mon enfance dans cette ville parce que mon oncle est de Thiès et j'ai passé toutes mes vacances à Thiès. Voilà une ville, une région qui marque d'une pierre, d'une tâche indélébile l'histoire de notre indépendance et de notre pays. Les grandes luttes syndicales sont parties de Thiès. Thiès est une ville de lumière. Le nombre d'intellectuels que polarise la région, les richesses horticoles et minières de cette région place Thiès au cœur du Sénégal. Il m'a dit on n'a pas le droit de laisser passer. Thiès doit voir ses enfants se rassembler, se mobiliser et on doit coordonner la synergie pour faire émerger cette région. Je pense très sincèrement que ce n'est pas parce que le président de la République a parlé d'émergence ce n'est pas parce que le président de la République a été élu qu'il s'est engagé pour Thiès. Il m'a traduit, il m'a dit, je veux d'ailleurs réfléchir, engager une, nourrir une réflexion pour que nous puissions mobiliser la population de Thiès, les jeunes, les femmes, tout Thiès, pour que nous partagions un même idéal, faire prospérer Thiès. Et aujourd'hui, quand je découvre que son mouvement est intitulé Alliance pour un Sénégal prospère, et il mobilise la région, il avait tenu récemment une, on avait tenu ici une cérémonie de remise de diplôme récemment où j'avais assuré la communication à la place de France, mais c'était noir de monde. Certainement, il a voulu limiter l'action aujourd'hui parce que c'est un lancement, c'est pourquoi il a choisi cette salle. Mais si c'était à la place de France, certainement cela refuserait du monde. Monsieur Ligue, je vais vous dire, je vais vous parler de l'ami. C'est un homme courageux. Je l'ai vu engager des défis. Quand il me parle parfois de certains problèmes, je lui dis c'est pas possible. Il me dit non, je vais le faire. Et à la fin, quand il finit de le faire, je viens lui dire mais comment tu as fait Il me répond simplement en souriant, je ne savais pas que c'était impossible. Voilà pourquoi c'est un homme de courage. C'est un homme de défi. Parce que je pense bien que le Thiès doit réfléchir et je vais faire ce, constat. Savez-vous que tous les financements qui sont distribués dans la région de Thiès par des hommes politiques, c'est des gens qui ont bénéficié des avantages de l'État Le savez-vous Tous Tout le monde qui donne de l'argent fois en reçoit de l'État. J'en reçois, j'en donne. Maintenant, ne me demandez pas de faire le poids entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. J'ai compris d'ailleurs pourquoi les hommes politiques sont relativement euh, à l'aise socialement, peut-être que ce qu'ils lui n'est pas en, rapport avec ce qu'ils ont reçu. Il y en a beaucoup d'hommes politiques qui sont très riches. Mais M. Nyingue est un des rares qui n'a pas encore attendu un quelconque avantage de l'État, parce que l'État ne l'a pas encore désigné à un poste officiel. Mais il s'est engagé depuis des années à soutenir les jeunes, à donner des bourses. Il y a 5 ans, il a offert 500 bourses au ministère de l'enseignement supérieur. 500 bourses. C'était inimaginable. Quand Abdoulaye Wade, à l'époque, avait fait un appel pour qu'on aide les jeunes. À l'époque, il avait donné 500 bourses. Spontanément, il n'était même pas dans la politique. Et aujourd'hui, il ouvre une école à Thiès, à dans la région. Il va jusqu'à Kabla après Dakar. Il continue de financer les femmes. Il donne des dizaines de millions. Et je sais que ce n'est pas l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent de l'État il continue d'encadrer les jeunes. Il continue de soutenir toutes les initiatives sociales dans la région. Moi, je pense que quelqu'un comme ça, si il faut continuer à, à diffuser ce message-là. Parce qu'en réalité, il n'a encore rien reçu de l'État et il est généreux et absolument généreux envers cette population, extrêmement sensible à la condition de ces populations et au quotidien. Cet homme-là, le jour où il serait maire, le jour où il serait mis dans ce pays, Thiès arrête Thiès et serait définitivement là. Je